de vote numéro 2. Nombre d'électeurs inscrits 438. Nombre de votants 299. Nombre de bulletins nuls 4. Nombre de suffrages exprimés 255. Ont obtenu Coalition Alternative Libérale 36. Coalition Benno Bokk Yakaar 251. coalition LDR Yeesal 8. bon li ñuy sant yàlla bu baax rek te it lii li muy wane mooy victoire collective la boo xam ne Benno Bokk Yaakaar def nañu ko ci biir département de Thiès te yaakaar ne waxuma la département de mais ce sera partout dans le pays te li muy wane aussi mooy le leadership de président Macky Sall est incontestable.

Eh, di gërëm suñu borom bu baax a baax di féliciter tous les acteurs yi nga xam ni engagé woon nañu donc ci élection bii nii parce que def nañu ko ci jàmm yaakaar naa loolu am na solo léegi nag ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañu ci liggéey bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp plus particulièrement waa parti socialiste waa AFP waa APR naturellement waa PIT waa LD waa Bës Ñakk ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci liggéey bi ak ñi nga xam ni cité wu ma donc di wax ni dañu am mbégte tey te dañu leen di féliciter au nom du président de Benno Bokk Yaakaar le président Macky Sall ñi ngi leen di gërëm di leen sant mais tout particulièrement di féliciter aussi monsieur le maire du département di féliciter encore ñi nga xam ni yàlla def na ñoo falu tey donc suñu xarit le maire Momar Ciss soxna Yéali ak euh, Talla Sall bi nga euh, Talla Diagne bi nga xam ni dafa dem euh, ci béréb bu sell bi Makka xam naa ni mi ngi ñuy ñaanal foofu yaakaar naa moo tax sax donc résultat yi mel nii donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni fi mu ne nii waa département de Thiès pare nañu pour jël département bi teg ko ci loxo Benno Bokk Yaakaar de manière définitive l'engagement est pris aujourd'hui te am nañu yaakaar ni maire yi nga xam ni ñëw nañu fekk si monsieur le président de la république parce que président def leen a sant ñu ñëw ànd ak moom liggéey ñu d'accord ak moom parce que xam nañu njëriñu au conseil des collectivités territoriales parce que gannaaw ba population bi waxee ni ci référendum bi ni d'accord nañu ci au conseil ñoom ñoo waroon euh, jeexal liggéey bi te def nañu ko nu ñu gën a rafetee maa ngi leen di félicité bu baax a bi ministre bi ñu wax maanaam euh, boo jëlee fii presque téeméer yu nekk juróom-ñaari fukki woote nañ gannaaw loolu dafa mel ni ñun de am nañu euh, ci téeméer bu nekk euh, juróom-ñetti fukk ak juróom yaakaar naa loolu mooy score soviétique yi ñu daan wax loolu dafa wane ni liggéey bu baax def nañu ko ànd nañu ñun ñëpp vraiment pour am victoire boobu donc dañ ciy gërëm di sant suñu borom bu baax a baax di am yaakaar ni loolu c'est pour dina am euh, ay lendemain meilleur. 30 pour cent yi des war ko mën a jëliw waaw yooyu yaakaar naa fi mu ne nii yàgg naa wax ne bal bi mi ngi ñun te comme ñun ñoo ko yoree te Thierno Gaucher la am naa yaakaar ni bu ànd ak Abdou Mbow man ma taxaw ci digg bi di séddale am naa yaakaar ne ak maire département naturellement ak ñëpp ak DG ak ñëpp ak ñëpp ñu ci jàppandoo surtout nag vraiment ñu ngi félicité ñëpp nag ñu xam ni bàyyiwuñu kenn di wax ni 30 pour cent 30 pour cent yooyu am naa yaakaar ni dinañ ci jël lu bëri bëri parce que moom affaire bi moom eh, eh, dafa mel ni sotti na 2017 nag ma wax leen ni ñu ngi koy préparé bu baax a baax amul dara luñ ciy bàyyi liggéey bi dina commencé monsieur ministre à partir de demain nous allons commencer à travailler les premières réunions c'est à partir de demain pour préparer 2017 waxuñu 2017 2017 sottee muy 2019 am naa yaakaar ne ñun ñëpp dinañu ànd te ndam mën na am maa ngi leen di gërëm di leen sant. ñu mun a ànd ànd fu ñu waroon ànd yëpp amul benn commune bu ñu bàyyi ci fan yi dem waxtaan ak ñi ñu waroon waxtaan yëpp donc euh, li li gën a fës ci élection tey yi mooy dafa am ñu woote woon ne nañu banque loxo yi bañ a ñëw te ñooñu bu ngeen seetlee ci référendum bi. seen argument yëpp ñu ngi ko wéere woon ci taux de participation bi tey ñoom ñu woote nañu banq loxo bañ a ñëw ñu am pratiquement ci téeméer yu ne ci téeméer yu ne wala ci fukk yu ne bu gën a yomb fukk yu ne juróom-ñaar yi ñu woote te ñooñu juróom-ñaar woote pratiquement ñëpp ñu ci gën a bëri bokk coalition Benno Bokk Yaakaar lañ joxe donc victoire bu am bu net la bu amul benn laam-laame buñ ci jàngatee dañuy wane que parti réew mi teewatul ci département monde rural bi loolu mooy réalité bi teewatuñ fa foo teewul nag bu ñuy demaat yeneen joŋante mën nga bañ a am yaakaar ni di nga fa am dara parce que le monde rural moom moo voté massivement c'est ça la réalité le monde rural de Thiès voté na massivement pour la coalition benn Bokk Yaakaar ah, réew mi amatuma fa amatu fa dara loolu mooy réalité bi mu des nag ville de Thiès bi commune ville de Thiès bi loolu aussi ñu ngi ciy liggéey ak ay pexe ak ay stratégie commencé nañ ci waxtaan ak maire yi ak monsieur le ministre ak ñu ci war a waxtaan yëpp dinañ continuer pour que bu 2017 victoire bi gën a fës encore ci biir ville de Thiès gën ci ànd gën ci jàpp bu ngeen seetloo ci voté bi am na ay élus yoo xam ne ci liste réew mi lañ bokkoon ñu ñëw jël seen responsable te ñu voté loolu lu bees la lu fës la lu tax ñu def ko war nañ ko jàngaat war nañ jàngaat lu tax ñooñu bañ a boycotté ñëw parce que dañu xam ne loo xam ne fukk ak juróom benn at pratiquement wala fukk ak ñaari at mu ngi duré te dëkk bi di gën a dellu ci gannaaw ci wàllum nuñ ko yoree ñoom waa réew mi teewuñu fenn mbalit maa ngi ni gàññu fi mu toll éclairage public et cetera teewuñu fenn ki nga xam ne moom la dëkk bi dénk baatam da koy jéega da koy able yekkale dem yoonam kooku bu yàggee nit ñi dinañu xam ni nañu dem seeti keneen te loolu moo fi commencé feeñ euh, loolu tax ay conseillers jël seen responsabilité yi bokkoon ci réew mi jël seen responsabilité xam ne parti bi ni ñu ko yoree du yorilin parti dafa war a dund ki ko jiite war a taxaw euh, am taxawaay bu mu am pour parti boobu dund mais nekk bitim réew. bi joxe ay SMS wala ay ordre rek nit ñi topp la loolu mu ngi commencé feeñ ñu ngi leen di gërëm di féliciter vraiment. monsieur bi yàggul dara dañ leen doon euh, ji ñàkk déggoo moo taxoon seen résultat yooyu baaxul woon ndax résultat yi wane na ni seen ànd kon fi ne euh, ci dëgg la léegi euh, wax dëgg yàlla ñun ay responsable ñoo fi nekk di ay gor aussi ba ñu toogee waxtaan ni ñu waree waxtaan sama kàddu nag ci kaw suma grand frère sama lu bëri di sama jaam nag Augustin Tine ak Momar mi wër ma ak ñeneen maire yëpp bañ toogee waxtaan bu ngeen seetloo département de Thiès moo gën a néew coow ci wàllum tànn bu ñu tànn affaire u euh, conseillers yi loolu benn la ñaar ànd gi ñu ànd ni def tournée ànd gu rafet la te am nañu yaakaar ne ñun ñii en tout cas muy man muy docteur Tine muy Abdou mu yeneen responsable yi surtout maire yi gëm naa ne ñun ñëpp xam nañu enjeu yi enjeu yi du Augustin du no Sall yii ñëw nii législative ak présidentielle du suñu enjeu enjeu wu Sénégal la enjeu wu benn Bokk Yaakaar la enjeu wu parti bi la du suñu enjeu personnel donc xam nañu que naka la ñu war a def ba incha allah nit ñi wóoluñu